lan bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot nag si yéen kon ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës avocat yow Selim xëy janoog waaye taskatu xibaar yi xam ni du deltu ginnaaw ci xeex bi maître Moussa Sarr naqarlu doxalinuk état nguur gi moom la jàpp ni euh, la muy jëfee tegwul fenn waxtu woowee état ci boppam moom la mu diggee woon def na ko xëy na ca buntub l'école ba teg fa takk der yu sakkan xam leen ni benn ndongo kon du fa dugg loolee kon danañu ci am gan ci kanam secrétaire général kii Semsak waajtaay ubbi teg l'école bi ak it yi nga xamante jàpp nañu ni boo dana gàllankoor at mi nga xamante ci wàllum njàng moom la ñuy dëgmal Louga bassin ba ca kër Serigne Louga Est moo wal jëm kon ca kër ya askan wa ca boppam ni sonn dëgg la ñu def ma nga leen di julalay tolof tolof am sax jur goo xamante ni jot nañu caa ñàkk seen bakkan ba tax ña ngay yuuxug wàllu bëgg maire ba kon ñëw taxaw ci indi ci ay safara fële nga xamante ni moom moo di états femme gàtt gàtt juróom fukki nit ñàkk nañu ca seen bakkan ñoo xam le ni ci taarixu xeeti jëf yooyu bokk na ci fusillade bi ëpp ñoo xamante ni loru nañu ca loolee ci concert la woon des na ca dikk ca kanam tuuti wàllu tàggat yaram jàpp leen ni Sénégal mi ngi wàcce bu baax jàkkaarloo kon bi mu war a amal ak Cap Vert ña nga cëpp regroupement fële ca sali la gaynde yi kon di daje ngir fas fa yéene tàggatoo ponk yaa nga kon mbokk yi di ñu yaatal mbokk yi di leen nuyu dellu rafet ànd bi ak télévision Futurs média tàmbale ko ak coow la ca Yavu Selim dana tëj am du tëj njàng ma na mu fay demee atum ren ji ñi nga xamante ni ñoom ñoo taxaw eh, ngir récolte boobee ñu bañ koo laal xëy na ñu janoo ak waaye taskatu xibaar yi maître Moussa saar eh, taxaw solal robb kon Yavu Selim naqarlu nag état ni nga xamante ni eh, ci biir dossier mi ngi koy doxalee mu gis ni tegu ko fenn waaye it gestion bi mu bëgg rëcc seen i loxo dugal ko feneen nee na ñoom duñu ko seetaan xeex bi danañu ko xeex ba mu mat sëkk loole la ñu xëy xamle ci Mame Birame Diouf Diafara Ba ndogal bi état bu Sénégal jël tëj kon école Yavuz Selim yi loolee ab forcing la goo xam ni kon nguur gi mu ngi koy def te sax teguwul ci yoon maître Moussa Sarr xamle ko ba ñu tata nag ay kàddu taxadeer yi teew fi lépp kon ngir tere taskatu xibaar yi ñu amal seen liggéey. ci mujjanteel gi nag daal am ci. décision bi ñu jël mooy wéyal suñu doxalin école bi ñun Yavuz Selim SA ñoo ko moom ñoo ko jënd état bi bu nee ne dafay wéyal ay dogal. contre Basket légitime na dem seeti alalu Basket légitime école yii ngeen nekk yii ñu nekk Yavuz Selim SA moo ko jënd depuis le novembre ba mu koy jënd boobu état du Sénégal tasagul Basket légitime parce que tas boobu mu ngi intervenir le 7 décembre 2016 par conséquent sunu alal la sunu moomeel la titre foncier bi sax sunu tur la nekk. conseil en bi ca collège euh, Sultan di Amady euh, Tine moom nag dàq bépp administration provisoire goo xam ni dinañ ko jox euh, Marifa. cha ba xanaa bu nekkee ci suñu biir mën naa nekk waaye ci sunu biir parce que nag école bi xam leen ne ay français ak seen ay sénégalais ñoo ko moom li ngay def allusion moo di ñooñu ñuy wooyee maarif maarif ñëw nanu mais man def ñu ñi nanu dem bi def nañ seeni tableau ku def say tableau def yëpp waaye waaye mën a dem tabaxi école xam naa ne am nañ xaalis. ñun ñu nekk ñu indi leen suñu soutien du point de vue du principe. principe parce que tout simplement dañooy jàpp ni euh, école privée euh, dafa am place am ci biir euh, dispositif bu éducation ak enseignement bu Sénégal comme ni enseignement public bi amee place am fii. ñun ñoo laaj état du Sénégal moo ñu yóbbu di am lu muy laaj donc peut-être bu état du Sénégal amul li mu laaj ah n'est-ce pas état du Sénégal mun na bañ am li mu laaj. n'est-ce pas su boobaa ñun ñooy am ndam su ko amee itam du tere ñun yoon may nañu ñu wéyal xeex bi parce que décision de première instance la mais balaa ñoo yegg foofu état bu respecté boppam mais réewu yoon la jël sañ-sañu boppam dem ci tribunal ñu layoo ñu convoqué ñu li mu waroon def mooy xaar yoon joxe dogalam. réunion bi direction générale bu groupe Yavuz Selim convoqué nag seen biir boole parents d'élèves personnel bi ak it avocat lépp ngir xam naka la ñuy def faat jàkkaarloo ak nguur gi. nango ko réunion la ñu euh, convoqué woon nguur ga nag moom na mu ko diggee woon daal dina koy def euh, xëy euh, daal di fay samp takk der yu solo ngir tere gone kon dugg ca biir l'école boobu personnel pédagogique bi daal la ñu may ñu agsi fa li nag parents d'élèves yi naqarlu nañu ko Moussa Ngom Jafara Ba subas altine bu uteeg lañu taamoon gis ci buntu école Yavuz Selim di ko waral doon ab lim bu takku cay takk der yu xëy garde buntu wa buntu ba sax ñuy segg ñu mën a yegg ci biir ñenn ci ay parents d'élèves ak ñu ñëwoon seetaan si ñu dàkk leen ñu toogee ci geneen wet élèves yi it ñàkk lu ñu def liggéeykat journaliste ak ñenn ci bokk ci parents d'élèves yi waroon teewee ab réunion donc la ñu bàyyi ñu jàll takk der yi mel ni ñu fas yéene jëmmal yi tukkee ci arrêté bu ministère de l'intérieur jëm ci ñu tëj école Yavuz Selim yi tey sax ab ndaje ñu ngi koy jàpp digante parents d'élèves yi ak jëwriñ bi yore wàllu éducation ngoog yow Selim tey noonee la xëy bindoo Abdoulaye Ndoye secrétaire général CUSEMS mooy suñu gan euh, monsieur Ndoye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu suñuy militante militant sympathisant sympathisant di nuyu parents d'élèves ak élèves wax waa Sénégal yëpp. mi ngoog euh, di leen ndokkeel tamit ci at bu bees bi. Mhm. di ñaan yàlla defal ñu ci sutura. sàmm réew mi wàccee fi xéewal ak jàmm. mangook euh, lii nag euh, xëy na nekkul loo xamante ni ci at mu bees mi buggee woon nañ ko noonu mm. coow li ci euh, yow Selim boobaak léegi xëccoo bi mi ngi tar ci diggante waa l'école bi ak nguur gi gone yi lii du dal xel yéen ñi nga xamante ni yéen yéen a yor wàllu syndicat yi sa njàngaru jëkk bi ci kaa yow Selim jamono joo xamante ni yeneen i gone ñu ngi war a tàmbali njàng mi waaw njàngat bu njëkk mooy jaaxle et tristesse sentiment de tristesse moo ñu animé ndax tey bu ñu xëyee fajar dem groupe scolaire Yavuz Selim collège Bosphore gis waajur yi jaaxle toog ci suuf gis élèves yi ne ci biti ñu tëj école bi loolu man masuma ko gis lu ma doon gis mooy dañuy ñëw ni ko élève bu bëgg a jàng takk der yi taxaw ubbi buntu ñu dugg ndax école kenn du ko tëj ku tëj école ubbi prison euh, ñaareel bi mooy lu nu jaaxal mooy euh, Yavuz Selim euh, def na ñaar fukki at ci Sénégal am ay résultat performance scolaire ci examen yi mooy bac BFM ak concours général et kilifa yu bëri rawatina ministre de l'éducation nationale ak yeneen kilifa yu ne ci réew mi yóbbu nañ fa seen doom kon nag école boobu bu bonoon tey ñoom duñ fa yóbbu seen doom bañ fay jàng euh, lu ñu jaaxal nag mooy ñu xëy suba rek ay junni junni élèves ñu bëgg a tëj école bi xañ leen jàng ñun nag loolu la nangul parce que ñun syndicat lu ñuy xeex mooy euh, pour. Euh, àq yelleef liggéeykat yi mais aussi outil de travail mooy école bi mu doon école bu mucc ayib mais également permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation lu ñuy wax une éducation pour tous et au nom de de ces principes moo tax ñun euh, lépp loo xam ne Yavuz Selim teg na ko di manifestation marche euh, point de presse ñu ñëw taxaw ci parce que ñun bu ñu defoon leneen mooy jaaxal nit ñi ñun suñu role mooy défendre école. défendre école mais ko xoolee Abdoulaye mel na ni nguur gi fasu yéene dellu ginnaaw parce que diggé woon na ko njëkkoon na tëj euh, yabal policiers yi ca Ndar tey ji euh, ci Ndakaaru bu ñu déggee Serigne Mbaye Thiam ni mu waxee ci week-end bi euh, arrêté boo xamante ni ñëw na dëggal ko ñu xëy jëfee ko mel na ni ñoom duñu duñu dellu ginnaaw tey jii xale itam ñi ñu fa jot a inscrire lan mooy doon seen ëllëg waxtu wi. waaw mais loolu mooy problème bi mooy dama ne au nom de la centralité de l'élève xam nga ñun saa yi ñu doon grève rek dañu ñaan bu leen sacrifier élèves yi dégg ngeen ko xalaat leen élèves yi bàyyi leen xel élèves yi waaye ñun tamit ñu ngi wax nguur gi tey au nom de la centralité de l'élève nañu bàyyi xel élèves yi bu ñu sacrifier élèves parce que ay junni junni élèves ñu fay jàng du ay chinois du ay euh, bengalais ay sénégalais lañu ñu fay jàngale ay sénégalais lañu te wax naa ko ñaar fukki at ñu ne fi euh, def ràññeeku ci seeni résultat ñoom kilifa yi yóbbu fa seeni doom kon tey. lay bu ñuy jox lay boobu ajul ngooñ. mais affaire diplomatie boobu est-ce que Doudou moom moo gën a. tax mi mais non nous nous sommes un encore encore une fois au nom de la souveraineté nationale quelles que soient les raisons waruñu nangu parce que tey jii euh, am na école yoo xam ne France am na ay groupes scolaires Yavuz Selim te ñooñu ñoo bu dee terrorisme ñoo ñoo dax euh, gën a taxaw di xeex terrorisme mais aujourd'hui je crois que tey bu ñu xoolee au nom de l'intérêt supérieur de la nation. de l'intérêt des élèves de la centralité de l'élève au nom de la souveraineté nationale école boobu waruñu ko tëj parce que bu ñu ko tëjee conséquences yi c'est des conséquences incalculables beneen mbir mi mooy euh, ñun yàlla dafa def nii dem nañ xool nañu dem nañu Bosphore dem aussi euh, collège Sultan mooy bu nekk en face université mm-hmm. mais ay njaboot yu bëri téeméeri téeméeri njaboot ñu ngi fay daan seen doole di dundal seen i njaboot tey li ma gën a jaaxal bi ñu paree di génn benn waajur bu jigéen daf ma ne ah ñun leen doy ci yenn nu yaakaar ma ne ko lu tax mu ne ma ndax ñun ñii bu nu fi jëlee tey suñu njaboot du duñu xam fu ñu jëm pexe lan mooy saafara non ñun on se mobilise je crois que président de la république bu ñu koy fal en 2012 nu muy yàgg yàgg président de la république bu ñu ko falee c'est pour régler les problèmes du Sénégal pas les problèmes de notre pays de la Turquie ou mbir mi Sénégal la xewee te il doit être à l'écoute du peuple et du moo tax ñu fal ko dañu woon rupture gérer le pays autrement kon nag tey bu ma waajur yi toog taxawee mooy fàttali association des imams tey ñëw nañu yëkki seen kaddu oustaz Alioune Sall ñëw na yëkki kadduum ay personnalités yu bëri ñëw nañu yëkki seen kàddu xale yi dégg nga leen dégg nga parents d'élèves yi dégg nga sénégalais yi dégg nga organisation syndicale yi kon nag tey njiitu réew mi le président de la république doit être à l'écoute de son peuple il à l'écoute du citoyen xam ne kat ñu ko fal mooy ñii ñuy jooy ñi ñu ko fal mooy parents d'élèves yi ñu ko fal mooy militant syndicat yi. mais am nga ci yaakaar concrètement. non ñun dañ ci am non dañ ci am yaakaar parce ñu ngi koy rendre compte. non jëwrin ñu ko waxee ngi bëgg yàgg. non xam nga réew noonu lay doxee problème bi am na Mali mais dañ ko yóbbu assemblée nationale di si débattre am na dëkk yu bëri le problème s'est posé parce que boo jiitee réew da ngay jiite di déglu réew mi dafa mel ni borom kër foog mu déglu njaboot gu mu jiitee maintenant tey imaam yi wax nañu oustaz Alioune Sall wax na yeneen kilifa wax nañ organisation syndicale yi wax nañu mais maintenant al defe naa ne loolu tey ak lu xew tey yabu selim spectacle bu ñu gis ñun tey sunu yaram dafa taw moo tax ñuy massawu parents d'élèves kon nag tey nguur gi vraiment au nom du droit à l'éducation pour tous au nom de la souveraineté nationale au nom de la centralité de l'élève ñu ubbi école Yavuz Selim bàyyi xale yi jàng ci jàmm déjà créé nañ un traumatisme un choc psychologique tey xale bu ñëw di bëgg dugg ñu nga fekk ay takk der ñu tëj bunt bi taxaw loolu rek xale bi même bu ñu ko yóbbu école ren loolu dina ko marqué dundam mais surtout année bi vraiment nañu fexe jàmm ñëwaat ñu bàyyi ñoo ñu jàng parce que ay sénégalais ñoo fay jàng ay sénégalais ñoo fay jàngalee ay sénégalais ñoo fay suturo ñoo fay daan seen doole loolu lépp buñ ko boolee defe naa ne tey au non de l' intérêt supérieur de la nation. ci wàllug euh, njàng moomee euh, jàpp nañu ni euh, yéen waa CUSEMS at maa ngi ubbi ubbi tey jàng tey concept yi ñu ci wax j' espère que tàmbaleewu leen ko ak i ak i revendication. waaw lu ñuy wax d' abord defe naa ne kuy wax dëgg rek na nga nangu ni at bu ñu génn nii yëngu-yëngu yu bari amul ci école bi du nag suñuy problème dañ ko régler mais jàngalekat yi bu ñu dajeex kilifa yi di aussi di jaale. ak waa Tiwaawan yëpp ak kilifa diine yëpp ci génnum àdduna suñu kilifa suñu waajur suñu sëriñ sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin di ñaan yàlla na ko teeru ci àjjana yi gën a kawe euh, te euh, tas ñu ci barkeem. Mhm. yokk leeram euh, di wax ni ñoom ñëpp waxoon nañ fi ñun nag nee nañ at bi yëngu-yëngu amul defe naa ni nguur gi waroon na profité ci accalmie boobu yëpp luy revendication mu réglé ko ren bu ñuy ubbi école waruñu wax revendication mais nag. tey la waalo gën a parce que. dégg boobu dox bi ma daal di ñëwaat euh, ci wàllu revendication yi tey la waalo gën a aay. Hmm. revendication ñu jàpp ni ñoom waa CUSEMS nguur gi mënoon na koo lijjanti ci mi te jëfewu ko euh, waxtu woowee euh, ña nga ci mbiri ubbi tey jàng tey ca boori HLM foofee gone yi ñoom ñoo ca taxaw ngir bu ñu nee béréb dugg ca lekkool ya njàng ma war faa mën a sotti Ibrahima Gaye moom mooy coordonnateur ADPS foofee kon na ci micro Cheikh Tidiane jonn la do caméra Thierno incha allah bis bu ñu ubbee dinañ mun a jàng parce que ADEPS euh, dafa dafa agir ci ñaari vole dafa agir agir ci volet environnement agir ci volet pédagogique bi parce que ñaari volet yooyu mooy tax mu mën a ubbi maanaam tey jii ñuy nettoyer école yi euh, désinfecté ko def rangement table banc yi suñu paree ci loolu nga xam ne incha allah le 4 la enseignant yi di tijji bu ko defee le 4 bu enseignant yi ñëwee le 9. ñu jël disposition yëpp ba nga xamante ne le 9 incha allah xale yi dinañ mën a def ubbi tey jàng tey xale bu nekk dinañ la jox benn big bleu benn bic vert benn cahier bu nga xamante ne dafay servir de de remédiation cahier de remédiation lañ ko tuddee donc loolu ubbi tey jàng tey bi dina possible ndax aussi def nañu ay exercices yu nga xamante ne ñun sur le plan communal dañ koy harmoniser harmoniser ko pour toutes les écoles dinañ tirer épreuve ba nga xamante ne premier jour bi suñu ñëwee enseignant bi dina def diagnostic gu élève ci wàllug njàng moom it waa COSYDEP ñu ngi ci euh, bàyyi xel at mi ne mu war a tëddee ak it euh, coppite yoo xamante ni xëy na buñ ko indee njàng mi dana gën a ñoŋ euh, kii di Cheikh Mbaw si COSYDEP moom àdduna ci ci micro Pape Faragning. gis ni bu ñuy wax si njàng ak njàngale fitu nit ñi day dem ndax grève yi nga xam ni mooy am wala bokk ndax jotee bi jotee bi am ci diggante gouvernement ak syndicat yi. wala boog daaw gis ngeen fuite yi ñu fi doon waxati tey ñuy waxati yaw silim donc coowul daal dafa mel ni moo ëpp ci mbirum jàng jàngale coow loolu nag dañoo gis ni dafay nëbb yenn jëf yoo xam ni am na solo loolu te acteurs di ko def ñun nag ñu bëggoon euh, ne doon na baax xëy na ñu mën a fësal jëf yooyu ci biir loolu ñu tuddee benn salon des innovations en éducation formation comme ni ñu koy gisee ci agriculture gisee ko ci santé gisee ko ci urbanisme gisee ko ci yeneen secteurs yi salon boobu nag ab ndaje la boo xam ni dana tax ñu may gouvernement bi ñu wan ñu nag lan la ñuy def dëgg-dëgg li war a mën a tax ba suñuy doom suñuy xale ñu mën a jàng ñoom ñëpp mën a jàng kenn du ci gé ñu bañ a bedd kenn wante bu ñu jàngee mu nekk jàng bi leen di jariñ ñu ne it salon bi euh, danañ ci ubbil aussi buntu entreprise yeeg partenaires techniques et financiers yi euh, syndicat d'enseignants yi société civile bi de d'élèves yi xale yi ku nekk ñëw euh, wane lépp li nga xam ne mu ngi koy jëf ci mbirum jàng ak Euh, te mu mën a euh, effectivement yóbbu kanam suñu njàng beeg jàngale. maa ngoog yóbbu ca kanam njàngale mi ak njàngale mi Abdoulaye yaa ngi doon digg sànq ci euh, jafe-jafe yoo xamante ni xëy na tegoon ngeen ci seen tànk. Mm-hmm. daaw doon xaar ne ngeen nguur gi saafara ko loolee gisu leen ko. Mm-hmm. lan moo ci gën a fës ci yooyu revendication ngeen leen àggee woon. te gis xam nga tey boo jëlee ay junni junni jàngalekat dañ ay professeur contractuel lañ wala maître contractuel mooy ñoo xam ne intégré ñu leen fonction seeni njaboot dañuy tumranke ndax capital décès bi weesuwul ñaar fukki junni mooy lu doy waar te taux de décès bi dafay dafa bëri ci corps enseignant jàngalekat yu bëri tey avancé nañu fay ñu leen seen rappel d'avancement de validation et d'intégration loolu ay engagement yoo xam ne nguur gi jëloon nañ yeexaay bi moo ñu jaaxal ay junni junni dossier tey ñu ngi xaar fonction publique ak ministère des finances formation diplômante mooy jàngalekat yoo yuy euh, jàngale économie am bac euh, A ñuy jàngale mathématique am bac B ak bac G ñuy jàngale philo am diplôme sociologie ñooñu sax commencé nañ leen regrouper ak ñoo xam ne ñu ngi jàngale français am diplôme sociologie. Mm-hmm. gestion démocratique bi aussi gis nañu ay rëq-rëq parce que daaw jàngalekat yu bëri dañ leen sanctionné te teguñu ko ci yoon mënuñu compétir. Euh, beneen mbir mi dañuy obligé jàngalekat yi ñuy signer ay engagement quinquennal ñu ne arrêté bi ñun nee nañ leen arrêté bi c'est caduc ministre bi wax na jël na ci ay engagement ñu ngi xaar mu jafe-jafe mais euh, boo jëlee problème mu alignement indemnité de logement mooy ndàmpaayu dëkkuwaay euh, bi ñu ko posé nguur gi daf ñu ne may leen ñu def jàngat mooy étude sur le système de rémunération des agents de l'État bu ñu ko defee cabinet MGP Afrique moo ko def mais cabinet bi bu ñu ko defee résultat yi mu njëkk a génnee dafa wane ni il y a des iniquités et des disparités dans le traitement salarial des agents de l'État mhm. maanaam yamale amul loolu moo doon taxoon président Amadou Mokhtar Mbow wax c'est le traitement différencié des agents de l'État qui est l'origine des perturbations dans l'espace scolaire que nguur gi dafa leen di fenn parce que euh, ministre bi ci li mu leeral mooy budget bi ñuy dëgmal 2018 euh, wax ñu voté ko xam nga budget dañ koy voté voté gu ñu budget 2018. mais xëy na mais ministre bi non non ministre bi balaa moo bari dugg duñ ko ci ministre bi lu muy wax ça n'engage que lui parce que ñun bu ñu dajee ak gouvernement moom il n'est pas maître d'œuvre des négociations c'est le ministère du travail et de la fonction publique de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public ñoom ñooy maître d'œuvre bu ñu tasee ak gouvernement le juillet moom mu ngi fa woon ministre ngi fa woon ministre de l'habitat ñu ngi fa woon dañu ne document réew mooy président de la république ax amande ñu ngi xaar nag résultat euh, retour bi parce que dañu ne bu ñu defee amendement yi ba pare bi document bi génne dañuy ubbi ay négociation te de rappel que en 2015 négociation yi premier ministre bi moo ko jiite woon. Mm-hmm. kon moom il n'est pas le porte-parole il n'est pas maître d'œuvre te nee na tamit moom. Mm-hmm. mais dafa mel ni dafa mel ni yéen buñ leen déggee da ngeen ko bëgg a ci at mi ñuy dugg parce que mu ngeen ko tàmbalee fàttali heure bi xëy na lool mooy nguur gi ko war a jëfee te ñoom leerlu nañu ni duñu ko jëfee atum non du imposer wu xam nga ab réew. loolu moo ñu jaaxal ci ministre bi parce que mënoo doon ministre de la république xamoo ni autant dafa am loi de finances initiale ak loi de finances rectificative la question de la validation des années de vacation et de contractualisation bi ñu ci d'accord ba xaatim ko ak nguur gi dañ ko euh, voté par procédure d'urgence à l'Assemblée nationale bi ñu ci paree ñu jël loi de finances rectificative loolu dafa am ci réew ministre de l'éducation bu ko amul daf ñuy jaaxal kon nag et eh, luñ ci jàngat ñun. mooy ni da bëgg gannaaw gannaaw daal programme wu ko mu mu dugal ko ci programme. non du moom mooy pro moom ministre la gouvernement ñun la ñu signé accord te dañu jógee Saly. lu ñu fa jëlee évaluer guñu ko sax waxaguñ ci mais ñun lu ñu jàngat ci sortie ministre bi mooy dafa mel ni bëggul jàmm ci njàng bi parce que nit day wax kàddu yoo xam ne day indi jàmm dalal xel yi rassurer nit ñi mais kàddu yu mu indi boo dégloo réseau boo duggee ci réseaux sociaux yi nga déglu réaction jàngalekat dalalul seen xel. lu mu indi nag mooy tey boo dégloo syndicat yu bëri tey ñu ngi ci tànku teg préavis parce que nag fagaru moo gën faju comme moom nee na xamuñu fu da ngeen teg préavis non ñun on va déposer un vi parce que ñun toog nañu at vacance yëpp toog nañ ko di muñ kenn dégguñu amoon yaakaar ne ren bu ñu ubbee. question alignement indemnité logement nguur gi dafay ñëw wax lu leer ministre de l'éducation nag bu dee nguur gi lay waxal wala boppam lay waxal en tout cas wax ju mu wax dalalu xel di ko fàttali ni aussi réew bu amee loi de finances initiale day am loi de finances rectificative di ko fàttali tamit ni budget bu muy wax voté ñu voté guñu ko te même buñ ko voté avec la loi de finances rectificative lépp loo xam ne nguur gi engagement bëgg a ko respecté dina ko respecté parce que sur beaucoup de points ici au Sénégal nguur gi jël na ay loi de finances rectificative. kon daal ci tënk nañ a saafara lu ko mooy euh, xëy na dinañ leen fekkaat ci terrain bu ñu leen miinee mbiri ñaxtoog yooyu. non ñun xam nga syndicat euh, dafa bokk ci constitution bi. benn jour dañu doon waxtaan ministre bi ne ma ndax yow da ngay dem campagne électorale ma ne ko moi je suis pas un politicien mosoo ma gis ci liste may deex députation mosoo ma dégg état major APR wala PDS wala mais je suis un syndicaliste lu ma toog fii mooy xeex ak ak yelleefu jàngalekat ñun suñ syndicat dañu ne kuy jiite syndicat munoo bokk ci parti politique parce que boo ci bàkkee dañ lay génnee ci biti kon ñun suñu rôle la ñu ne tey bu ñu noppi woon ci mbirum Yavuz Selim noppi ci xaw ci réew mi nguur gi sax war na tiit parce que dans un pays démocratique fort on a besoin d'un mouvement syndical fort di xool nit ñi te dafa war am changement de paradigme xam nga lu tax dafa am ay élections yu ñu organiser ñu rationaliser table de négociation maintenant nu ñuy xoolee syndicats yi nañ leen xool comme ay partenaires comme ay citoyens yu bëgg réew. te loolu amagul loolu amagul parce que ñoom dañuy xool toujours comme ay ennemis te duñu ay ennemis. ñun ci réew mi la ñu bokk war nañ ñu déglu di jël en charge lu ñuy wax boole ñu ci décision yi bu ko defee. Euh, lu bëri mun nañ ko régler ci njàng. du ñàkk kon xëy nañu ñu euh, bàyyi xel yooyee digle Abdoulaye Ndoye secrétaire général CUSEMS moom la ñu doon dalal ci xibaaru digg bëccëg bi monsieur Ndoye ñu lay gërëm di rafetlu waaw maa ngi leen di gërëm di di leen sant ci kii bi di wax ni daal euh, réew loolu la tubaab bi dañuy wax de la contradiction naît le perfectionnement. Mhm. dañu dafa am kilifa diine bu mag bu mës a laaj ay muxadam kenn ki ne ko lu sëriñ bi wax rek laa wax bi mu ñëwee di laaj ñoo ne kooku jaruñu koy laaj mooy dañu bëgg. xalaat yi contradiction kooku richesse la ci réew mais réew du ñu ñuy ñëw rek toog télé lu nguur gi wax ñu ne baax na ñun dañu ne ay syndicat lañu xeex ak yelleef xeex pour njàng mu baax permettre xale yëpp ñu dem école ab du provisoire yi ñu wàññi ko accord yi nguur gi signé mu respecté ko parce que dañu ne négociation baax na dialogue social baax na concertation baax na waaye wax luy tax mu am njariñ mooy looy wax nga jëfee ko boo ko defee rek. ñëpp seen xel daal jàmm nañ ñooy. ok euh, Abdoulaye Ndoye ñu koy garam bu baax secrétaire général CUSEMS euh, des ci wàllug euh, njàng moom ak ubbite gi ñu jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru octobre yëri wàllug solu xale yi parent d'élèves yi ñoom it ña nga koy waajal diggante boutique yi ci prêt à yi waaye it yenn saa yu baax yi ñuy fekk ci fëgg jaay ba fu ca nañu nga fay dugal seen loxo ngir gone yi mën a ubbi ci jàmm Aminata Mbaxe Sow lépp li xale bi di soxla ngir daal di dem école daanaka am na ci boutique bile fii ci marché HLM fii nag lu ko jëlee yére ba jàpp ay sac ak i fourniture am na fii ci biir boutique bi nag boo fi egsee nga xam ne ñu ngi waajal ubbite école. on a prévu des habits pour les enfants pour euh, pour l'ouverture des classes quoi oui. soft moom am na 1000 francs pantalon am na 1000 francs ça dépend 1000 francs 1500 yére xale lool rek lañ koy jaay même chemise am na chemise am na t-shirt. waaw mais yii boo fóotee ba mu set paase boo solalee sa doom mën naa am dina ko jànge école ba école tëj te du def dara. Fatou Ndiaye lay wuyoo xale bi la élève la ci classe de cm moom nag ci fan la jógee Ndakaaru Ndiaye daf say ñëwoon ngir passé ay vacances am tey jile mu ngi waajal ñibbi mu ñëw marché ngir ut si li muy soxla ngir démarrer année scolaire bi. dinaa jënd saak jënd bic jënd kay jënd livre ay jupe ay ay ay bëri. ci boutique yi ñuy jaayee ay prêt-à-porter wala sax boutique yi nga xam ni ay yére bal lañ fay jaayee ñoom ñëpp daal nañu yokk seen stock ngir jàppale way wayjur yi ñu mën a préparer rentrée des classes. loolu moo tax ma indi bal yi parce que ay yëre xale rek la bal am na yoo xam ne dajjeegu ma ko sax damay xaar ouverture bi bu ñëwee rek ma dajji lépp. ci boutique prêt à yi wala sax ñi nga xam ni ay yëre bal lañuy jaay dañ fay faral di gis ay wayjur yu ñëw utal ci seen doom luñu ñu ubbee école mu mel ni bu weesoo fourniture scolaire yi yëre yi tamit ci waajtaay yi la bokk Bassin ba ca fële ca kon euh, Touba Seras foofu ma ngay indi la jafe-jafe askan wa jàpp nañu ni dafa wal ba daal tàmbali di leen fekk ji loole nag doon coono bu rëy ci ñoom am sax jurgo goo xamante ni ña nga cay daal di euh, faatu askan wa nag taxaw euh, di yuuxu ko wàllu maire ba ca boppam la ñu ca daal di joxoñ bëgg mu dugal ci loxoom saafaral leen tawat wu ni mel ñu fekk ji kon suñu ndaw ca béréb ya diirub ay at a ngi ni station d'épuration bu Touba Seras mënatu la dékku mboolem ndox yu bon yi nga xamee ni mooy bàyyikoo ci dëkk bi tey jii lu ëpp ci ndox mi ñu ngi ko tuxal fii ci quartier Kër Serigne Louga Est nga xamee ni géej gi mu fi def sonal na lool askan wi. ñun daal sonn nañ naqar mënut weesu ah, ñu jël ñu ci biir dëkk ba indi ñu fii ci biir àll bi dolli ñu ci di ñu defal ndox ah, mbalit bu bon ñu indil ñu ko fii medd bu bon ñu sànni ñu ko fii xanaa ñun raakol bi fekk ko fi muy xel li guddi ak bëccëg suba ngoon amuñu amuñu amuñu benn sécurité. 2016 2017 rey nañ fi ñaar suñu ñaari doom loolu ñoo ngi koy jooy vraiment ba léegi noppeegunu jafe-jafe yooyu tey jii dafa gën a tar ndax ndox mi far na ball ba dugg ci biir kër yi askan wi seen njàqare di gën a yokku ndax ñoom liñ ci ñàkk bëri na. tey ndox mi ñëw alors ball dugg ci kër yi vraiment yàq fi ay kër yi kër. rey fi ay jur lu met juróom-ñaari bëy ak seen doom xam nga ne loolu métti na. ndox mi ñëw na ba dugg ci sama biir kër maa ngi ànd ak sumay njaboot su fi ñëwoon guddi xam naa ne lii du fi yem. sama kër ndox mee fa dugg nangu bagage yi fi mu ne dese bu ma dara lu dul lii ma sol sama bagage yëpp a yàqu na. ndox mi moo boobu jóge fële wala ba si biir kër ga ba si biir néeg yëpp ma nga wal ba foofu fi mu añ baa nga ne reer ba yëpp ñu dara sànq bala ñu ngi xuus si biir ndox mi xale bu doon guddi xam ñu jëm. ginnaaw yàqu-yàqu yi ñoom am nañu tiit lool ci seen wàllu wér-gi-yaram moo tax ñuy tàllal loxo autorité yi parce que ndox mu bon mi mënut a ànd ak wér xet gu bon gi ñuy nooy ah yooyi ah bul comprendre à chaque fois ñun ñu nekk ci insécurité boo xam ne kenn mënul xam lu mu doon kenn mënul xam lu mu doon. jàngoro mën nañu cee fekk mën nañoo waga mën nañoo ndoxum siti lépp ci biir mën nañoo xoos xoos wokku bay bëgg a ñun daal sonn nañ tey li ñu daj. monté bu ñu fàttalikoo def na ay weer njiitu réew mi lancé woon na fii ci Louga ab projet d' assainissement bu nga xamee ne rek defaraat station bi ci la bokkoon waaye booba léegi askan wi ñoom ngi xaar te gisaguñu dara. boobee projet président Macky Sall lancé woon fa sax maire ba ma nga ko koy euh, fàttali ndax ba ñu yegee jafe-jafe wi am na lu ñu jéem waaye mel na ni yëf yi euh, daf leen ëpp loxo ba tax boobee projet bëgg nañu ñu daal di cay euh, baral kon loxo yi ngir rek daal di mën a jàppale askan wa xamante ni moom mooy jibu jàlloo mooy adjoint maire bu Louga ci micro na Fall lañ koy teewloo. maire en tant que maire yi li mu ci war a def def na ko ndax bi xibaar bi amee ñu ndox mi génn ci kër jàmbur yi. leen jàppoon yëpp dañ ko bàyyi dem jàppale nit ñooñu jël nañu peel bi ak la fa nekkoon lépp ci ay moyens jéem a fexe ba ndox mi taxaw taxaw taxaw ni ba nga xam ni ñi nga xam si noonu la waroon a méttee ñu jéem ko atténuer ba nga xam si loolu du fa yegg naa liggéey bi nag dafa mérite cee new doole ndax ñëpp war nañoo fàttali ne président Macky Sall son excellence ñëwoon na fi ah lancé fi benn projet boo xam ne si moo war a def assainissement Louga gépp te dafa naa bu ñëwee. non seulement Touba Seras mais Louga aussi ci biir koñ yi am na quartier yoo xam ne si amagul woon assainissement defe naa projet boobu suñu ñëwee tàmbali assainissement bi nga xam si Louga yëpp kenn du yooyu loolu jàpp na comme président Macky Sall ñëwoon ba ko li des xëy na yàgg incha allah ñu démarré comme ni ma ko entreprise bi xam nañ ko donc nañ mu ñëw ni rek Kaffrine moom yitte yittewoo nañu am ndox waaye ndoxum taw gouverneur moom moo sol euh, dàllam wàcc fa nag euh, ca dugg ca tool ya doon xool nawet bi fan la fa toll jàpp na ni euh, bu tawaatoon naas lëf rek dëna gën ndax jamono ji am ndox manqué na fa daan na it naqarlu engrais yi mu jàpp ni yéex nañu ko jox gaañ yi ñu teew lay kàddoom atum nemmeeku gi mu amal ci toolu béykatu Ndukumaan gouverneur bu diwaanu Kaffrine di Jean-Baptiste Colly ànd ak délégation bu am solo ak waa projet d'appui à la sécurité alimentaire moom nag daal dinay rafetlu li nga xam ne moom mooy tolluwaayu gàncax gi donte nag gis na ne tool yi lee laajaat nanu ay taw li ñu xaw a tiital rek mooy ñàkkum ndox ndax euh, taw bi xaw na arrêté tuuti boor Malem Hodar li ñuy ñaan daal mooy ñu am fii ak ay fan ñaar wala ba ñetti taw barkeel ci semaine yi ñu génn rek nemmeeku woon nañu ay sotorel maanaam ay gunóor yu nga xam ni daloon nañ ci kaw tool yi ba waa DPV ñoom ñoo mujjoon jogo waaye tey jii nag daanaka kenn gisatu leen ba tool bi nga xamante ne benn jigéen moo ko béy daal dina wane ne lépp yembaat na gouverneur daal di ko ci félicité kon daan nañ trop bi ñu ñëwee ba fii ci toolu madame Sarr gis li mu fiy liggéey jigéen buy def cent vingt hectares au moins ndax xam na yeneen tool fii cent vingt hectares la mënul lu ñu encouragé ko ñaanal ko di ñaan yeneen jigéen ñi mu doon seen royukaay. fii nag li béykat yi doon joytu ci ndorteelu nawet ba moo di tardé bi nga xamante ne engrais bi xawoon nañ ko tardé laata ñu koy jot. lenn rek la ñuy lañ xam ne mooy engrais bi xaw naa yéex a egsi buñ ko mënoon gën a teel indi. yaakaar naa ni campagne bi dina gën a la wàllu mbéy nag dafa doon loo xam ne euh, dafa ñoon président de la république euh, ñaar gouvernement Sénégal ndax xam nañu ni réew mi du dem bu ñu bàyyee béy à côté mu doonoon nag visite bu nga xam ne tax na gouverneur xam bu baax a baax tool yi nu ñu tëddee doxum nemmeeku bile tamit yóbbu woon na leen ci toolu ceeb yi nga xamante ne béykat yi nekk ci njàppalu projet d'appui à la sécurité alimentaire ñoom ñoo koy béy fii itam ngóobeef bi mën na am solo itam ci wàllu ceeb bi ci gox bile kon Ibrahima Diame moom moo toppoon ci wisitub eh, eh, gouverneur ba eh, ca tool yi des ci wàllu ko tool yi ak liggéey ñu fas yéene amal fële kon ca xelkom xalif bu kon dem si yàlla Serigne Saliou di Serigne Cheikh Saliou Mbacké moom daal dinay feddali kóolute confiance bi jëmale ci kon Cheikh Amar bu TSE ngir mu jiite kon yooyee liggéey di ci laaj nag mobilisation bu mag ñu amaloon ndaje fële ca xaban benn village soriwut dara euh, taset Cheikh Anta Diop ma ngi foo nag latir say xal fu xalfub sëriñ Saaliyu Mbàkke mi fi dëddu mu ngi jàjj ak a ñaax nag taalibe yi rawatina jullit yépp ngir ñu mën a dem xel koom dem ci déq bi ak ngóob mi lu jum ci wàllu toolu gerte yi ak toolu dugub yi liggéeyub sëriñ tubaa ba nga xam ne moom la daan liggéeyal sëriñ Touba Cheikh Saaliyu ca daaray xel koom liggéey booba waat na na mu ko daan waxee ne ndabul taraanga la loo xam ne sëriñ Touba Cheikh Saaliyu Mbàkke daf ko daan séddale bunti kër yi lislaam yépp ndab loolu nag moo noppiwaat sëriñ bi bëggul kenn des bëggul kenn manqué moo tax nee na mi ngi ànd ak mbooleem askanu maam maharam di ànd ak mbooleem kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah di woote waat liggéey boobu maanaam yëpp Cheikh Amar woon na leen ci liggéey sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ Saliou ca toolu xel koom ya le 6 ak le cinq ku yeex doo fa fekk lenn. mu doon amal nag mbir mi ci dëkk bi di xabaan fii de sorewul lool taset fii la samp yi daara kii di Serigne Cheikh Saliou Mbacké moom sax jàjji na bu baax jox ndigal ki nga xamante ne jëwriñ la ci kër gi di Cheikh amaar bu TSE ngir mu nag jiite liggéey yi nee na am na ci moom yaakaar lool ndaxte. nee na gaynde la ci waar wi sun borom subhaanahu wa taala nee na woon yonante bi wa amma bi nihmati rabbika fa la defalee tey dee ko sa wax kon ak cantam yàlla da koy seereel borom bi subhaanahu wa taala waaye diko ko seereel Serigne saaliwu mi nga xam ne moo tax mu xam ko nee na nag Cheikh Amar Serigne bi nee na nangul na la ne mooy sa ndey nangul na la ne mooy sa baay nangu na la moo dox sa digganteeg Serigne Saliou kon mi ngi seeral jullit yëpp ak cantam gum am ci yow tey ñaan suñu borom mu sàmm la sàmm sa njaboot ak mbooleem ku la xam lépp loo xam ne yéene nga ko yàlla nga ko yàlla mottali. di ab déclaration boo xamante ne def na ko ci kanamu nag Serigne su bëri rawatina jóge woon ba Touba di kaddu yoo xamante ne laal na ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Amar ba tax na sax moom ronga ñu wadd na Serigne Cheikh Saliou moom sax joxe na ndigal ñëpp daje fi nga xamante ne moom mooy xel koom ngir ñu mën a góob ak a junniy junniy taalibe daañu leen gis Xelcom. bitim réew ak uh, cong goo xamante ni am na ca États-Unis fële coon ca Las Vegas daal dinañu fay faat lu toll ci juróom fukki nit gàtt gàtt cib concert la woon benn fusillade président uh, bu Amérique daal dinay yëkkay doom jaale njaboot yi nga xamante ni ñoom ñoo ca ñàkk uh, seen doom ci taarixu kon xeeti jëf yooyu bokk na ci lu gën miti xatu ki ne dem tàggat yaram dañ koy tàmbalee ak euh, football yi gaynde yu euh, Sénégal fas yéene tàggatu ngoon kon euh, fële ca terrain bu jàmbaar ca sali loole nag ngir waajal jongante bi ñu war a seq ak Cap Vert marché boobe kon samedi la ñu ko jàpp mu soxal cinquième journée éliminatoire coupe du monde kon yu 2018 kii di Ndeye Sène moom ma nga bokk ca AS ASC ville de Dakar moom nag mooy reine du basket 2017 mu di kon ñeenteel bi yoon cib euh, carrière am euh, mu mel ni ci wàllug record it euh, daal na ci am kon lu mu def ci wàllug jaloore loolee tax nak yëkki na ay kàddoom di sàkku ci jeune génération bi ñu liggéey waaye it daal di xool seen dund nuñ ko gën a mën a sellalee ngir mën a àgg ci yenn niveau yi ci wàllug tàggat yaram Ousseynou Diop Habib Seck ñoo gisee ak moom moom. seen mooy ren bu basket ci atum 2017 bile doon ñeenteelu yoon mu koy jël doomu ndar bile nag nekk ci ay ville de Dakar joxe gis-gisam bi ko tànn. tegle naa deux ans di xëccu pour battre record bi mais xëy na tey la ko yàlla dogaloon parce que def naa la tout pour battre xam nga record bi parce que man nekk naa koo xamante ni depuis bi may commencé nekk tout temps commencé basket damay xool si ñeen ñi fois lu musul am ah, mu am nii donc dama siy sant yàlla bu baax di wax ne ndam li du ndamu ville de Dakar ASC ville de du du ndamu Saint-Louis mu Sénégal yëpp la naka la gisee basket ci diwaanu Sénégal ak ndax mën na am ay xale yoo xamante ni mën nañu wéy ci tànkam reenu basket ci atum 2017 bii di ci tontu. parce que euh, am na suñu naan sax man euh, xam nga man maa tax yenn xale yi xam nga du duñu jël li ñu war a jël te fekk na du loolu xale bu si liggéey lu ndey seet di liggéey rek am li ndey seet di am. liggéey plus nag waxuma liggéey fii ndey seen yam da ngay liggéey li weesu li ndey seen di liggéey pour am li maa ngi leen di conseiller loolu ñu ñu bàyyi si xel bu baax jéem liggéey parce que affaire du dara liggéey am hygiène de vie dégg ay conseils kese. moom Ndeye Sène tàmbali woon lu jëm ci wàllu formation ci centre Mbourika Fall waaye nag mbir yi yombul woon. chance bi ma amoon dama am coach boo xam ne daf ma daan gëtëng dama amoon Alioune Dia daf ma daan poussé. di ma gëtëng di ma yóbbu géej di ma yóbbu ma daan dem ba mu ga dañ daan dem sama parents yi di ma kalaamee naan leen waaw kii dina rey seen doom bi liggéey bi àttanu ko di wax te fekk na dafa am lu ma bëggaloo man tamit ma bëgg ko fekk si kese te jamono yi ne toll nii ma toll man équipe fi laa nekkoon xale boo jël commencé ko pousse tuuti nit ñi wëri fee ñëw ni ko bareeteel dalay rey wala lii wala laa xam nga muy xale bi gëm loolu yàq wala mu dem ba liggéeyu tayal bi jàpp ko ñeenteelu trophée bile ñaari nit la ko jagleel waaye tamit jose ak encadreur yi nekk ci ay ville bu ndakaaru waaw trophée bi maa ngi koy déjee bon ku naan euh, président Yatma Diaw muy suñu président te nekk fi jamono ji xam nga mi ngi si prison bi te bu doon suñu sagoo lii ma am nii tey mu fekk fi mais yàlla dogalu ko man maa ngi koy déjee lii am nii tey maa ngi koy déjee ASC ville de parce que ndam li seen ndam la c'est la première fois ma gagné ak ñoom parce que bi may ñëw ville de Dakar dama ñëwoon pour jàppale leen du kenn woowu ma man maa xool xam ne équipe bu jar a jàppale la. nday Sène amaat beneen couronne bii doon ñeenteelu yoon bi moom ci wàllu tàggat yaram rawatina lii di basket bare na ay raay yoo xamante ni jël na ko championnat coupe du Sénégal afro basket féminin ak yeneen i raay yoo xamante ni takkal nañ ko ko. moom lay seen kon ñuy dellu di ko ci sargal dal ci yéen li ñu xëy ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. ngeen jëf wér du weesu céng mappéng li wér te wóor moo di yafu silim amatul ci réew mi anki dina kay nañu état bu Sénégal moo bëgg a pare ci coow ak wax yafu silim moo waral ñu taxaw temm ci suul école yafu silim yi ci réew mi ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye yéen kaay bi nañu aw këyit la bindu ñu siiwal ko keroog samedi ñu ne bépp école bu tudd yafu silim amatul sañ-sañu jàngale ci réew mi yéen kaay bi ne nañu këyit woowee Aly Ngouille Ndiaye moo ko signé bind nañ ci ne ñoo ngi sàkku ci élèves yi ak parents d'élèves yi ñu fexe ba wàccoo ak dogal boobee Mamadou Kébé mi njiital association parents d'élèves yi yéenekaay bi état bu Sénégal xaaruñu ci moom tey santuñu ko mu ñuy sàkkal fu ñu yóbbu suñu doom ak fu ñu leen dul yóbbu li ñuy xaar ci moom moo di mu fexe ba jàng ak njàngale mu baax am ci réew mi kilifay Sénégal yeeg dogal bi ñu jël mu di tëj école yi Yafu Selim yi société bii di Yafu Selim SA nga xam ne moo yore école bi nee nañu duñu faste seeni loxo toog di seetaan administrateur yeeg parents d'élèves yeeg avocat yu école Yafu Selim yi enquête dina kay nee nañu tey ji ci suba bu ñu xëyee ab réunion de crise la ñuy xëyee Le Quotidien nañu lu ëpp tuuru état bi ëppal na nag tëj nañu école Yafu Selim yi ministre intérieur nee na parents yi bu leen yóbbu seeni doom ci école Yafu Selim yi ñi moom école Yafu Selim yi seeni kàddu ci xët mu njëkk yéenekaay bii di Le Quotidien nee nañu état bu Sénégal dafa def lu ko neex rek waaye dogal bi mu jël tegul fenn Vox Populi nañu ay takk der yu dul jeex la ñu teg ci école Yafu Selim yi ñoo fa nekk fees fa dell wër ko biir ak biti démb ba léegi école Yafu Selim boo romb seen fa sem yi nanguñu ko dugg a faat Yafu Selim état bu na ba mu ñëw mu tëye Macky Sall far leen tëj nañu école yaa fu yi jëli police teg fa ngir bañ ko fay dugg ba yaa nga fay jàngee arrêté bi nga xam ne ministre intérieur génnee na ko keroog journal bi di Les Échos nañu responsable école yaa fu yi ak parents d'élèves ya faale wuñu arrêté ba le témoigné nañu ministre intérieur yamale na fi mbiri yaa fu ministre de l'éducation di Serigne Mbaye Thiam l'évidence nañu nee na boo nekkee ci mbir war caa doon arbitre da ngay fa sa intérêt i kàddoom mu fay munut a taxaw di yóotu maqaama ak sañ-sañu seere école yafu selim yi maître Moussa Sarr di kenn ci avocat yu société yafu selim yi ne waa l'observateur ministre éducation di Serigne Mbaye Thiam bu ne inspection académie dafa rejeté woon dossier bu yafu selim wax na lu ko neex wax nay ngembal fokk Habib si xëy na wax ba ne gër géex ci l'observateur Habib Sy njiital parti espoir et modernité directeur cabinet Abdoulaye wadd ba woon xëy na leeral lu bari ci l'observateur chef de cabinet Abdoulaye Wade ba woon moom it xëy na leeral lu bari ci Walfadjri mu di Pape Samba la journal bi xëy dalal ci xëtamu njëkk journaliste yi Walfadjri dañu koo seete woon ngir waxtaan ak moom ci tolluwaayu réew mi diggam ak Abdoulaye Wade moom Pape Samba Mboup ak na diggante ba demee léegi dem gi première dame bu Sénégal Marième Faye Sall demoon kër Abdoulaye Wade ba sub tabaski doon ko seeti te mujj koo gis financement gi ñu doon financé CAP 21 yooyu yëpp ak yeneen i ponk yu ca nekk Pape Samba Mboup waxtaan na ci ak waa Walfadjri kii di maître Madické Niang it bi nañu Pape Samba Mboup bàyyilu ko ba naan maître Madické Niang li la ñemewut a ki Sénégal téye ko jiite ko yor ko di ko doxal la bëgg Pape Samba Mboup ne ñu kayit di forcé Karim Wade mu gàddaay forcé ko ci exil maître Madické Niang moo ko signé ñu gëmoon Abdoulaye Wade lool ba bu mësoon a tissuuli ñu ne ko yaaramu kàlla gëmoon wadd ne duñ ko mësa woon ginnaaw dem ba tuddee woon seen bopp ay waddiste éternel ñoo ñee la journal l'évidence jagleen xëtamu njëkkam ñu bari ci ñoom weddi nañu seen ngëm-ngëm mu di waddiste éternel bañ doon wax weddi nañu Abdoulaye Wade ñu ci mel ne Souleymane Ndéné Ndiaye Alioune Sow Modou Diagne Fada Farba Senghor ak Samuel Sarr Alioune Sarr ministre du commerce moo nekk ci xët mu njëkku soleil national moom jëwrin gi gàllo wàllu njënd ak njaay nee na ni ko réewum Inde defee fexe ba matal wàllu autosuffisance en riz mu di ceeb bi muy dundee mu bàyyal ko boppam ba matli ko sëkk loolee Sénégal mën na ko Sud Quotidien mel ne ku naan ko Condé du doon ren ndax 2017 mi ngi tàggoo daanaka ñetti weer moo ci des te bi at mi di soog a teru bari na lu fi président Macky Sall diggee woon lu ci mel ne autosuffisance en riz bit sa ministre des sports mu ne dana ko tijji collège de proximité yi ak lycée départemental yi mu fi diggee woon collège franco arabe yi ba ci juróom-benn fukki daara moderne ak ñeent mu fi waxoon yooyee yëpp président Macky Sall ko gouvernement am defuñu ci tous L'As Modou Diagne Fada ne ci xët mu njëkk réew mi quotidien président Macky Sall bilaam ci bopp réewum la na pon waaye pon na ko ki dàqal waa Kaolack mi ngi ci direct info Mouhamed Ndiaye direct info nañu mooy njiital mouvement Rahma moom Mouhamed Ndiaye Rahma ku yebbu bàyyi ko xel ndax caaxaanul gis nañu ko ci tabaski gi muy séddalay ndimbal ci turu président Macky Sall léegi nag nee na ab tournée lay waajal ci réew mi semaine bii di ñëw ngir taxawal ay antenne lépp rek ngir dooleel parti président Macky Sall bi mu di APR moom Mouhamed Ndiaye Rahma direct info nañu ñi jàpp jàppoon ne li ñu ko investir lu woon ci wote législatif yi da ko metti dana ko tax a découragé ñooñee juum nañu ngóor si di Mohamed Ndiaye Rahma tey jii la gën a dogu tey jiit la gën a taxaw ci falaat président Macky Sall ci lay dox ci lay wax ma wax leen xew-xew jamono bi nekk ci l'observateur ma nga xewee ca ndar bi leen yéenekaay bi Mamadou Diaw dafa dem ca patron sàcc ko juróom-ñeenti million ñëw ñu sàccaat ko Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu koy gërëm bu baax jaajëfal leen mbokk yi yéen ñun ci xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi incha allah dana dellu si 19h30 ci yeneen xibaar ñaanal leen ngeen yendu jàmm ak programme télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.